mbokk yi ginnaaw bu nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonentam bu tedd bi ak saxaabaam ak képp ku jaar ci seenu yoon di leen xeeñtu ba ilaa yawmi diin ñoo ngi leen di jàngal nuyoob lislaam boobu ñu jàng leegi te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne moo dajale fii di jiital ci ziyaara bi ak nuyoo beeg ñaan gi alxalifa al cheikh muhammadin il muntaqa di ko ñaanal yàlla sunu borom tabaraka wa mu guddal aw fanam lool te dolli ko ak wér lool ba yéeneem yi nga xam ne moom la am ci lislaam yépp mu mottali ko naal yi mu naalal sëriñ bi yépp mu yeggale ko ba naalaat yeneen te ñu ànd ko ak moom di ñaanal kilifa yi nga xam ne sii ne ñoo nekk ci biir réew mi yépp ak fu ñu mën a nekk ci goxi réew mi te jiite njabootug diine wala ñu jiiteeg njaboot ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal ñoom itam yàlla defal leen jàmm bu ko defee ci kaw loolu ñu dellusiwaat fii tey niñ ko baaxoo di ko fi amale aljuma ju nekk saa yuñ tollee ci waxtu wi kenn ci mbokk yi ñëw taxaw fii ngir fàttalante ak yéen lu jëm ci sunu dund gi ñuy dund ci kaw suuf lan lañu ci lislaam wax ak naka lañ ko war a doxale tey nag ñu ñëwaat fii ngir indi benn tomb ci tomb yi nga xam ne si moo dund gee ànd ngir ñu jëm jéem cee fàttalante ak yéen tomb boobu nag moo di jafe-jafe ñàkk mooy alfaqru fil mujtamail islamiyi mooy pauvreté ci société islamique ñàkk moomu lan lañu ci lislaam wax ngir nu nuy def ba bu munu bu fi mënta jóge it mu néew waaye naka la ñuy dunde ak moom it bu amee lan moo ci war teefu ab jullit ci ñàkk ak nan la ko war a gise loolu ak yenn sabab moo waral ñàkk di gàllankoor doomu aadama yi ci kaw suuf ak lan moo ko indi loolu bokk na ci li nga xam ne si ne moo tax tey ñu ñëw ngir fàttalante ci ak yéen ñàkk nag dafa daj àddina bi kàpp waaye bu ñu tuddee ne ñàkk ci société islamique lu tax ñu settee rekk al mujtamaul islaami yi te ñàkk mboolem goxi àddina bi mi ngi fi li ko waral moo di gis nañ ne jàngoro jooju di ñàkk li gën a bari ñi nga xam ne si ne alawtiku na leen dal ci seen kaw moo di jullit ñi ñoo ci ëpple ñu gën a loru ci ñàkk gi nekk ci kaw suuf te alal ji nekk ci pàkki suuf yi li ci gën a bari ci loxol jullit ñi la nekk te téere bi jullit ñi it mooy téere bi nga xam ne moo rekk la jafe-jafe ñàkk ngir bu amee mu jóg fii bu amutit mu bañ a am te ki nga xam ne si mooy al batalul baris al awal di acteur principal ki jiitu ci rek ñakk ci kaw suuf wane aw yoon wu ñuy jaar ba ñàkk bañ a bari wala mu bañ a am ki ko njëkk a def te tëral ay tëraliinam yoo xam ne ku ca jaar ñàkk sori la kooku mooy yonenteb jullit ñi kon yooyu moo tax kon fokk dañuy jàngat ñàkk ci anamuk diine lislaam ci lañ koy jàngate moo tax kon te jullit ñi ñoo ci ëpple moo tax ñu ne kon li ñuy wax tey mooy al faqr fi islaami ñàkk nag ni ma ko waxee mbokk yi ñu ci gën a loru mooy jullit ñi waaye daj na àddina Cap mboolem goxi suuf si foo dem ñàkk ga yaatu na fa lool bu nuy xool ci kaw suuf ci àddina bi wax nañ ne genn wàllu àddina bi ñàkk lal na leen lu tolloog ñaari junni million mbaa lu ko ëpp nga xam ak lu teg ci lu toll ci téeméeri réew ak lu teg ci réew yi àddina bi ñàkk tab dal na ci seen kaw muy alfaqaru gu metti ci biir ñooñu ñàkk googu lu tollu ci juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ci ay millions ci ay gone ci yoo xam ne seeni at éggagul fukki at ak juróom ñett nga xam ne masoora masooragul ñooñu jafe-jafe ñàkk boobu mi ngi ci seen kaw dal leen ñu doon ñoo xam ne seen ci ñi ci gën a loru lañ ñoom itam kenn couvriru leen kenn jëlul ay seeni charge ñuy dund jafe-jafe yu metti te loolu lim bu toll noonu ci ay gone ci àddina bi ñàkk googu ñu ngi koy dund ak i jafe-jafe bu ñu xoolee it lu toll ci thalatha wa thamanina bil mia min fuqara il alam mawjudun fi ifriqiya 82 pour cent téeméer boo wàññi juróom-ñett fukk ya ak ñaar ci ñàkk gi ci àddina bi ci réew yi Afrique yi la dal réew yi nga xam ñooy continent Afrique ci seen kaw la dal ak lenn ci sud bi ci Asie ñi nga xam ne ñoo féete ci janub Asia ci suddu asiatique yi fu mel ni ki Bangladesh Afghanistan Inde Pakistan ak yu mel noonu ñooñu ak Afrique ñàkk gi ci àddina bi juróom-ñett fukk ak ñaar yu nekk ci téeméer bu nekk ci ñooñu la laal boroom xam-xam yi wax na it gis nañu ne fii deux jamono di doxe ci mettit ci guerre yi ak koom mi ni mu jëme benn côté loolu gis nañ ne feeg booba danañ egg ci téeméer boo wàññi juróom ñeen fukk ya way ñàkk lañuy doon ak ñàkk dana leen laal te ci biir Afrique lañuy doon ànd ak loolu lépp ci nisba mi awiya bi ci àddina bi ci ñu ñàkk juróomi téeméeri million ak juróom fukki million danañu fanaanee xiif bu metti gu tar ci guddi gu nekk ci lim bu toll noonu ci kaw suuf te ak ñàkk ko waral ñu gis ne lu toll ci juróom-ñetti million ci ay nit dana danañu faatu at mu nekk te ak ñàkk moo waral sabab seenu faatu kon loolu ñu gis ne ñetti segond yu nekk wax nañ ne ñetti xale lu mat ñetti xale danañu faatu te ñooñu it ba tey ñàkk rek gu metti moo leen faat mu nekk mbir mu yéeme mbokk yi te borom bi tabaraka wa taala de moom moo tàllal suufam si bind mbindeefam yi wàcce leen fi ñoom ñépp ñu yem ci li nekk ci biir suuf si njariñ li nga xam ne si ne moo ne ci biir suuf ñépp ñépp a ci yam yàlla bind ñépp moo fi indi ñépp te moo sàkk manafia yi ci biir suuf tàmbulee ci ndox ndox ndox mi ñépp ci yam ñëpp a amum ndox ñëpp wara naan ndox mu set mu sell te ñàkkug ndox rek ci biir Afrique lu toll ci fanweeri fanweer ak juróom-ñeent ci téeméer boo wàññi ci continent wu Afrique danañu faatu ci ay xale danañu faatu ci at ci ay million fanweeri million ak juróom-ñeenti million danañu faatu ci continent Afrique ci at mu nekk ci ay xale te lii leen faat mooy ñàkk ndox mu baax muñ mën a naan te bu ñuy xool réew yi gën a bari ndox mooy continent Afrique li leen yàlla dénk ci ndox ci ay géej ci ay dex ci ab taw yooyu yëpp terewul ñuy dund jafe-jafe yooyu te ba ba noppi loolu ñëpp ci bokk yam wàllu hmm, oxygène bi ñëpp a ci bokk yam yàlla moo ko indi ñëpp ci bokk yam wàllu énergie ñëpp ci bokk yam te mi ngi ci biir suuf si mi ngi ci kaw suuf si bari lool te bu ñu xoolee ba léegi ci Afrique am na fi ay nit yoo xam ne ba léegi weesoo gunu bu nu bëggee taal añ walla ñu togg dañuy fori ndéef taal ko ngir mën a jëfandiku ba léegi am na ñu toll ci tolluwaay boobu xëy na kuy dund ci yenn jamono yi wala ngay dund ci yenn gox yi dangay yaakaar ne loolu amut waaye am na ñuy dund ñàkk gu métti ak tartar yu métti lool te ba noppi énergie bi ci biir suuf li nekk ci jamono ci kaw suuf si lépp ñëpp ko bokk ñax mi ñëpp a ko bokk kenn ëppale wu ci kenn ñëpp a sañ a euh, sàmm seenu jur ñëpp a sañ dund ñëpp a saña jëfandikoo ñax nu mu leen neexee meññet mi ci kaw suuf ñëpp a ko bokkoo mbell yi ci kaw suuf ñépp ko bokk ak li nekk ci biir mbel yi muy euh, euh, richesse minérale al tharwa al loolu moo xam gas la moo xam petrol la moo xam jamaa la moo xam or la moo xam fer la wala yu mel noonu yépp mi ngi ci biir suuf si te ci suufi Afrique la ëppe addina bi ñépp ko bokk ba noppi mu féete côté am ñuy loru loru gu metti ngir ak ñàkk ba léegi nit a ngi faatu ci buntu fajukaay te ñakk moo tax mu faatu ba léegi nit a ngi fanaane xiif ba xëy faatu te ñàkk ko ko teg ba léegi jigéen weesoogul dugg ci biir àll di wut lu mu dundale njabootam ba toll ci taru mettit wu tar ci aw mat egg ci waaxu raam ba toll ci ron garab mucce foofa te da doon wut lu mu dundale ak njabootam te ñàkk ko ko teg ba léegi jamono gi toll foofu ak li nekk ci kaw suuf si ci am koom jant bi ñëpp a ko bokk li muy am ci joxe ci njariñ amul ñu ko war a jëfandikoo bàyyi ñu ca des jaww ji environnement bi ñëpp a ko bokk amul ñoom ñoo xam ne dañoo war a dund ñoom air bu pur ngelaw lu neex xañ ñeneen fu leen neex ñu samp seeni usine mm, yàq climat bi ñeneen di loru te bu ñu paree dawal seeni oto wala ñu dem ci yeneen i gox di fa dunde ñooña ñoom di dund loo xam ne si ne ay jàngoro la jural te loolu sa ñëpp a ko bokk di dund yow dundin bu neex ci climat bu neex ci jaww ji xañ ko ñeneen te mu ne ñëpp a bokk kaw suuf si yooyu yëpp mi ngi ci kaw suuf ñu ñu di ko dund mbokk yi lii bu amee muy métit ak jafe-jafe yu tar yii ci kan lay dellu responsabilité bii ci kan lay dellu waaw ndax ci suxub yi ci peuple yi lay dellu wala ci ruasa yi muy dirigeant yi lay dellu ñu ne waaw ci peuple yi lay dellu lu tax muy dellu ci peuple yi ndax ñoom kat ñoo yore siyaada maanaam souveraineté def ak dindi xaqul ixtiyaar ñoom ñoo ko yore ñoom ñooy buur comme ñoom ñoo moom réew ñoo dëkke réew mu nekk peuple yi fa dëkke ñoo fa ëpp ñoo gën a bari lañu ña ñuy jox ñu jiite leen lañu moom bu ñu leen di natt ci nañu toll ci askan wa du ñu mat sax 2 pour cent comme nag lu matul 2 pour cent la mbooloo jël dénk leen kon ñi leen di dénk kon ñoom yëf yi dana dellu siwaat ci ñoom ndax ñi ñi leen di dénk ci seen biir lañ leen dénkee te am nañ sañ-sañu tànn leen ba xool leen ndax war nañ leen a mën a dénk ñu mën a defar li ñu bokk jariñ leen ci ñu ji ko jariñoo ba ci seeni sëti sëtaat ñu mën a tànn loolu mën a segg loolu ba noppi te defuñu ko te bu nu juumee ba tànn it am nañu sañ-sañu ku ñu tànn te léegi liñ la dénkoon ni ñu bëgg nga doxale ko doxale ko noonu am nañu sañ-sañu teggiwaat la fa am nañu sañ-sañu teggiwaat la fa comme loolu nag loolu ak doole boobu choro yi muy peuple yi ñoo yore loolu kon jafe-jafe bi bu peuple yi dee dund ñoom am nañ ci wàllam waaye ci beneen côté ñu ne déedéet dirigeant yee ñu jiite ñoo teg seeni peuple ñoo teg seeni nit jafe-jafe yu metti yi ndax lan ndax ñoom kat bi ñu leen falee ñoom lañ jox al quwwa ak tanfisiya ñoom ñoo yor ak sulta tanfisiya ñoo yor quwwa ñoo yor force ñoo yor doole ñoo yor jumtukaay ñoo yor pouvoir exécutif lu ñu bëgg mu jàll mu jàll ñoo yor moyen pour exploiter li ci suuf nit ñi jariñoo ko ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo yor mën a jubbanti li dëng ba kenn koo xam ne si dafa jëfandikoo loo xam ne warul du yoon ca kaw ña ca des ñoom ñoo war a jubbanti loola ñoo ko war a dindi bu bu bu am koom génnee cim réew it ñoo war a séddalee ñooy séddalee kenn ku nekk lay ak xam ñu jox ko ko ba gox bu nekk lafa war a nekk ci lu nit mënta ñag ñoo ko fa war a yóbbu ba pare ñoom ñoo yor doole ñoo yor kaaraangeeg mën a aar it koom koom yi nekk ci seen biir suufi peuple ñoom ñoo yor kaaraangeeg di ko aar. ba kenn du ko monopoliser du am ñenn ñu koy jël bàyyi ña ca des moo xam koo xam ne si ne muwaatini la muy nationalité la wala étranger la kenn benn étranger warul ñëw ci amu réew di monopoliser alal li waa réew ma di ko jëfandikoo na mu neexe waa réew ma di loru di leen ca toqal ñuy mos di dundu am xiif ak jafe-jafe yi métti moom muy yóbbu loolu ñi ñu jox pouvoir ci peuple bu nekk ñooñu ñoo yor kaaraange kooku ñoo yor loolu ñoo ko war a sàmm ñoo ko ñoo war a sàmm it ña dëkkee ci réew ma te am doole ñoo war a dox seen digganteek ña amul doole ba kenn ña am doole du ñu ñaaj ña am ëpp doole di jëfandikoo la ñu bokk nu leen neex ci ñoom loolu yépp kon boo xoolee ñoom la ñu jox ah, kattan googu ñoom lañ jox doole jooju ñoom lañ jox moyen yooyu kon bu ñu bu nit ñi di peuple yi di dund jafe-jafe yii ñuy dund ci kaw suuf te ñàkk waral ko kon dirigeant yi am nañu ci wàlla waaye jafe-jafe bi yëpp di ñàkk bu amee mbokk yi balañ ci ñëw ci li nga xam ne si mooy lan la lislaam tëral ci lan la ñuy saafaraa ñàkk nan mooy lan mooy tax ak ñàkk jóge fi wala mu wàññeeku fi ak it bu ñuy bala ñuy waxit lan moo tax ak ñàkk di fi nekk ba ñu góor góorlu ci ba fexe ba loola bañ a am ba ak ñàkk sorinu balaa ñuy wax loolu dañuy njëkk a wax ndax ñàkk ci boppam mooy la ndax gàcce la walla ayib la wala sikk la ndax ñàkk sikk la wala gàcce la bu ñuy tontu dañuy wax ne maanaam alfaqr laysa alfaqr aaran wala ayiba ñàkk du gàcce mbokk yi ñàkk yi du ayib lu tax borom bi tabaraka wa taala sunnaam ci kaw suuf aadaam ci kaw suuf ak jaamam yi ñàkk du mën a nekk du mën a ñàkk ñàkk du mën a ñàkk ndax lu tax dafa bokk ci sifaat melo yi suñ borom yi nga xam ne si ne day wane matuk yàlla moom mu nekk xani yi mooy am lépp man lépp di ko jëfa di ko doxee nu nu ko nu ko neex loolu ci melo yàlla yi la bokk comme loolu ci melo yàlla yi nekk safaanug loolu muy bëgg te doo am wala léeg-léegi nga bëgg te du te du sotti muy melow ñàkk ci melow ci melow nit ñi la bokk loolu sifa la ci ci ci ci ci ci mbindeef ndax yàlla moom mooy xani yu amid xani yul amid moo tax mu ne yaa ayuha nnaas antum alfuqara ila allah wallahu huwa alxaniyu nit ñi ay fuqara lañ waaye yàlla mooy xani alxamid waaye nag ñàkk googu yi nag danañ ci ñëw ñàkk dëgg-dëgg gi tax ñuy wax nga xam ne si nit ñi dañoo war a xeex ñi yàlla jox kattan ñi yàlla dénk dañoo war a xeex ngir ñàkk googu jóge fi ñàkk googu mooy gi tudd léegi ci jafe-jafe mu metti boobu nit ñi di dund loolu ñàkk mën naa am te loolu du am ndax rawanteeg alal loolu mënul ñàkk ñii am lu bari ñii am lu néew ñii am lu digg doomu loolu mënul ñàkk bëgg dara te doo ko manit wala ni nga ko bëgg a doxale du sotti loolu ci melow yàlla la ndax bu ndax yàlla dafa bokk ci melow mu nekk xëni yi kon bu nit bëggee nekk xëni yi rek day jël palaasu yàlla kon loolu du mën a nekk du mën a ñàkk kon faq faqr am waaye nag ni ko ñenn ñi jàppee yaakaar na ñàkk dafa nekk ayib dafa nekk musiba dafa nekk gàcce ba tax ñuy dund ci jamono ji ñu dem ci wut demin wu mett ñenn ñi di toggoo ay crime irtikab ay jaraim ay crime ci rey nit ngir bëgg am ci dakkal dunduk nit ngir bëgg am ci teg nit ay metit ngir lan daw ñàkk ñenn ñi di sàcc ngir bëgg am dañuy daw ak ñàkk ñenn ñi di siif di këf lu nu moomul yi alale jàmbur ñenn ñi di ko foqarti ngir lan bëgg am ndax neen dañuy daw ak ñàkk ñenn ñi di jëf di di di jëflante ci jëflante bu ñaaw ci seen biir ci noggutonte ci jaayante doole ci tëdd ci alali jàmbur ci liggéeyloo nit ba mu noppi nga war koo jox ak xam lànk bañ ko koo jox lépp ngir daw ak ñàkk yaakaar na yow boo fayee ñi ngay liggéeyloo mën na am sa am am bi dana wàññeeku wala xër gu ëpp goo xër ci wut ngir daw ak ñàkk moo la teg lool loolu yëpp doon ay jëflante yoo xam si ne ñu ngi koy jëf ñenn ñi di dugal seen bopp ci alkande te sunu borom dafa waxoon ne wala turqu bi aydikum ila tahluka ñenn ñi di dugg ci loo xam ne si ne da leen i faat ñenn dugg ci loo xam ne si ne ñoom dañu leen cay faat wala ñu dugg loo xam ne ñoom ñoo cay faat seen bopp ngir lan nee nañ dañoo bëgg am ngir daw ñàkk moo tax ñenn ñi di humilier seen i mbokki jullit ak lu ji diine ja rafet rafet lu ko ja rafet rafet ñu wan na ginnaaw ngir lan danga amut ngir ñàkk ñeen ñi suub seen bopp ci loo xam ne si ne di wax ne nga xam ne dañu am nañ dañuy wax ne am na ku daan wax ne bam am mbaa bàmmeel bu sori am mbaa bàmmeel bu sori nga xam ne kooku foofu fi mu yóbbu am te bu ko yàlla tuddul du nekk bu ko yàlla tuddul du nekk yooyu yëpp nag nit ñi euh, euh, maanaam considération bu ñu jox am-am moo waral ak consideration bu ñu teg ñàkk moo waral ñuy dund dund googu te jàpp na ñàkk ci boppam dafa nekk gàcce wala dafa nekk ayib déedéet. ñàkk du ayib ñàkk du gàcce ndax lan borom bi tabaaraka wa taala moom mooy kiy wërsëgale te mooy soppi wërsëgam ci nu mu ko nooxee ci jaam bi jox ko ko balaa ëllëg su ko neexee mu xañaat ko ko nangu ko su ko neexee nit ki dund ba faatu te du am dara loolu yi ci aaday sunu borom da bokk ndax moo ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون naka noonu it noonu la waxoon nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia man borom bi tabaraka wa taala may séddale seenu seen am am seen dund ci àddina maa koy séddale kon moom mooy jox ki am te loolu da ko tontu woon jabaabiral mushrikiin muy way féttéerlu yéefar yi nga xam ne siine ay dañoo nekkoon ñoo xam dañoo bew yëg seen bopp ba ñu gisee ne wax yu yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa jox na ko yonentam bi alxuraan mu jox ko ab jaamam boo xam ne si ne da ko fekk ci ñàkk di ab juri ab jirim koo xam ne sosu ci jirim mu yónni ko tànn ko mu noon ki gën ci kaw suuf jox ko li mu gën li mu bëgg jox googee mu ko jox dañoo yaakaar dañ ko ko ëppale woon yaakaar ne yàlla du fekk ku ñàkk ku mel ne sallallahu alayhi wa sallam jirim bu mel ne sallallahu alayhi wa sallam mu di ko jox waxyu loolu la jàppoon moo tax ñu ne lawla nuzila hada al quran ala rajulin min al qaryatayn azim borom bi ne leen ahum yaqsimuuna rahmata rabbika door da wax ne nahnu qasamna baynahum maishatahum fi l ayati dunia ñu yàlla ba mu demee bay yónni yow bu dee yàlla lu yónni lu teree woon mu yónni rajulayni azim mooy lan jàpp ne walid ibnul muxiira ca makka wala urwat ibnu mas'ud as-saqafi ca taif ñooñee doon ay notable am alal ak leneen yàlla jox ci daraja ci seen kanami nit ñu yaakaar ne ñooña kat bu yàlla doon yónni war naa ñooña la fa war a fekk waaye warut a fekk ku mel ne Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu di ko jox nubuwaam di ko jox alquraanam yàlla nag xamal leen leen grandeur. ak daraja nekkul ci alal ba léegi nag am nañu jàpp-jàpp boobu waaye mi ngi nekk ci bakkan bu sell ak ruux bu sell foofu la grandeur nekk fi la daraja nekk te loolu yonent bee ko gën a def ñëpp moo tax mu ne kon man borom bi may séddale seeni wërsëg kon jullit bi daa war a gëm ne wërsëg am am yàlla moo ko yore moo koy joxe kon kum ko joxul bul jàpp ne da nga am ayib wala da am sikk ba tax mu lay def gàcce déedéet du gàcce te yéen yonent yëpp àllub àllub ñàkk yonent yëpp rémp nañ ko jaar nañ fa àllub ñàkk yonent yëpp jaar kurul Suleymaan Suleymaan mi nga xam ne yàlla daf ko joxe woon moom mu boore malakiya ak nubuwa doon buur waaye doon ab nabiyu pouvoir boobu ko yàlla joxoon nga xam ne si ne euh, àgg na ci xuduwaaha shahrun wa rawaaha shahr ni ko alquran melale jox koy jinne ñu di ko defal lu ne yaamaluuna lahu maa yasa maa yasha min maxaariba wa tamathila wa jifaanin kal jawaab wa quduuri raasiyaat loolu suleymaan moom loolu la ko yàlla defaloon waaye ku dul suleymaan boroom xam-xam yi nee nañ jaar nga ci àllum ñàkk traversé nga ko ba ci sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam dundum ñàkk tàmbulee ci fi mu ñëwee jamono ba ni mu wujjee daana toog ba jant so du am lu mu dundee lu taal lu mën a taal cim ci këram sax amu ko woon amutoon dara lu muy denc te moo gën ñépp looloo waral sax shaair ba doon ko melal eggoon ci xiif bu metti naan ko wa shadda min shaxabin ahshaahu wa tawa taxta alxijaarati kashhan mutrifal adami egg ci xiif bay jël xeer bu bëggee taxaw di ko boolee kaalaam di ko takk ngir sukkandikoo ko mën a jóg mën a jaamu yàlla kooku bu fekkoonte ne ñàkk day gàcce wala muy ayib wallahi du dal kooku kon ñàkk mbokk yi ab jullit na xam na ñàkk du ayib du gàcce te naka noonu ñàkk googu it noonu la lawe ci biir biiri saxaabaam alxumaatul kumaat jàmbar yooyu àndoon ak moom ñu ci bëri ci ñoom ndabul ñàkk sukk nañu ca ñu ci bëri ci ñoom ndabul ñàkk sukk nañu ca ci seen diirub dund mbaa diir bu yàgg bokk na ca ñoom mënees na ca lim ñenn ñoom ku mel ne salmaanul farisi yi jàmbaar jooju kooku yonent bi sallallahu doon wax as salmaanu minna ahlal bayt ngir lan ay ay kooku ñàkk bokkoon na ci ñooñu abi dharrin al ghafari suhayb ar-rumi bilal ibn rabah abu hurayrata abu darda ali ibn abi talib ñii ñëpp sukk nañ ci ndabul ñàkk kan moo gën ñii kan moo gën ñii kan moo gën a tedd ñii ak li ñu defal lislaam bu nu taxawee tey fii di wax allahu akbar seen deret dañu suuxate garabu lislaam mu màgg tey moo tax ñooñu ñoo dundoon ñàkk gu mel noonu jafe-jafe bu mel nii ñoo ko dund kon nag mbokk yi ab jullit bu ñàkk dalee ci kawam na gëm ne lii yàlla moo ko defal dogal bu mu tax muy togg ay bàkkaar di ca dolleeti di togg ay ay musiba di ca dolleeti ngir ne day daw ak ñàkk déedéet te bu ko yàlla tuddee ci kaw mënut a fexe ba mu reñ naka noonu ñàkk bu fekkoonte ne day ayib ngëneel yi yàlla wàccee ci way ñàkk yi jaar ko ci lami yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ko ngëneel yooyu kon du wàcc ci way ñàkk yi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yadxulu fuqaraa ummati ila aljanna qabla aghniyaihim bi xamsati miati aam way ñàkk ci sama xeet wi danañu dugg aljanna juróomi téeméeri at way am yi door a dugg aljanna kon bu ñàkk doon gàcce ngëneel yooyu du wàcc ci ñoom bu ñàkk doon ayib ngëneel yooyu du wàcc ñoom wax na it ni laa ahadun afdalu min alfaqiri ida kaana raadiya amul kenn ku gën ku ñàkk su fekkee ne aj ñàkk gërëm na ñàkk gi ko yàlla teg te muñ ko waaye ñàkk ak saalit ñàkk ak ñànki baaxut ci jullit du ko def ab jullit du def loolu naka noonu waxoon na ne annaasu kulluhum mustaaquuna ila aljanna waljannatu mustaaqatun ila alfuqara nit ñëpp li ñu njeejoo te bëgg ko di ko daw di ko reewe mooy dem aljanna di daw di ko wuti aljana nag moom li muy def te bëgg ko mooy daw wuti way ñàkk yi wuti way ñàkk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na it ne ittalaatu ala aljanna fa wajadtu akthara ahliha alfuqara wa ittalaatu ala annaar fa wajadtu akthara ahliha al aghniya nee na yër naa aljanna nee na bi ma ko yëree de yàlla wan na ma ne wan na ma li ne ci àjjana gis naa ne ña fa gën a bari wi wan wa ña fa gën a bari mooy way ñàkk waaye yàlla yërloo na ma sawara ma yër ko xool naa gis naa la fa gën a bari mooy ñi am mooy ñi am loolu nag mooy ñi am te yàlla nattu leen ci am am ndax am am dana doonum nattu am-am baax na ni'mal maalu saalix fii yadi rajuli saalix yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ëskay alal alal daal amul moroom su fekkee dafa nekk ci loxol kamu war a nekk ci moom alal dana am njariñ dana ñu ci ñëw alal am ko ban njariñ la am ci lislaam ak it lan moo war a tax nit nit ki war a góor góorlu nag ba ba gis ne yàlla da koo xañ mu muñ xañ mu muñ mu muñ ñàkk ga waaye daa war a wut loolu danañ ci jëm te sax ñi yàlla di nattu ci am am boobu mooy ñi yàlla jox te te ñu jàpp ne am am bi dañ ko yayoo te jëfuñ ci la leen yàlla sant nga xam ne dañuy yëg ne maanaam ñoom daal seenu rëy wala seen tolluwaay ba léegi am na am na ñoo xam ne jàpp nañu seen njàmbaar wala seeni effort wala seen tolluwaay moo tax ñu am am na ñoo xam ne da ngay gis dañuy yedd ku ñàkk jàpp ne ak yembaree ma ko xañ déedéet yembari xañewut moo tax borom bi nee woon fa a linsaanu isa mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa ma wax waaw jox na ma ko dama ko yelloo ak réyam tax mu jàpp ne lii moom war na jómbu ko daal waaye wa ama ida mabtalahu fa qadara alayhi risq fa yaqul rabbi ya bu ko yàlla xañe lu muy wax du comme gëmul yàlla dafay wax ne yàlla daf ma toroxal yàlla daf ma doyadal yàlla daf ma seetaan wuy fu ma jëm loolu la koy jàppee waaye borom bi nee na ko kàlla déedéet demewul noonu li ngeen jàppee ne loolu teraanga la am ngeen ko yàlla da leen ko jox déedéet li nga jàpp li ngeen jàpp ne ak ihaana la it déedéet ndax li ngeen defa ëpp lool fuuf ndax yàlla jox na leen te lam leen ba mu leen joxee lam leen ca sant defoo leen ko ndax bal laa tukrimuuna al yatim wala taxudduuna ala taamil miskin kon ñooñu nit mën naa am am am bi nekk nattu ci moom waaye mën naa am it am am bi nekk xewal ci moom waaye ña xam am nattu nekk nattu ci ñoom ñooña ña ci ëpp yonent di sallallahu moom lay wax ne bi ma yéree sawara fekk naa ña fa gën a bari mooy al aghniya ci ngëneel yi wàcc ci ñàkk ku ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wax na ne man laqiya faqiran musliman wa sallama alayhi xilaafa salaamihi ala alganiyi laqiya allahu yowma alqiyamati wa huwa alayhi gadbaan nee na ku ñàkk sama njaboot la dama ko fonk loolu bëgguma kenn ku ko doya dal wala mu tuutal ko ba tax na képp ci yéen ku taseeg ku ñàkk nuyu ko nuyu yin woo xam ne si ne bu tase woon ak ku am du ko nuyoo noona kooku bis buy taseeg boromam mer mu tar lay taseeg boromam te am na ñoo xam ne si ne jàpp nañ ne nuyu wala demlante wala jëflante moom alxani yi ku am rek lañ ko war a def boo ñàkkee dal bokkatoo ak loo baax baax waaye ndegam koo xam ne nuyoo rek ba nga war a nuyu ba ngay nuyu ku am nuyu woo boo ko taseeg ku ñàkk doo ko nuyoo noonu kooku mooy taseeg yàlla ci meram kon nit ñi lu mat a seetaat la te lu mat a def la